wax ci Sonko Sonko mi nga xamante ne nekk na modèle mën naa ne sa révélation politique la lan ngay wax ci moom si yéen la jóge dem beex partem te gis nañu am na si suma juumul 16 pour cent suma juumu la ah, lan ngay wax ci moom man de wax dëgg neex yàlla bertuma Sonko résultat yi mu am ma ndax euh, def na percée bu baax ci politique tey ku xam histoire politique bu Sénégal tey jiboka bi mu génnee partie socialiste 98 mu dem élection législative si je ne me trompe pas amoon na environ 10 ou 12 députés Il y a jugee Si nga ñëw en 2007 Idriss Seck a eu un problème ak Ablaye Wade bi mu première élection présidentielle amoon 14 Sonko mu ñëwaat avant loolu sax Issa Sall ci élection yi passé pur gis une percée bi nga xam une élection législative ok donc loolu ci politique histoire politique du Sénégal cas yu non noonu dafay bari mais man du ma ko phénomène phénomène mooy loo xam ne benn yoon rek lay am mais du phénomène mais def na exploit bu baax ci politique ma koy wax it euh, na def nank ndax politique course de fond la du course de vitesse ndax it euh, li boo gisee it lu ëpp li ko yàqal li ko defaral moo yakal yàqal Sonko communication moo ko may lu am lu mu yàqalee it communication ko ko yakal na communiquer mais nay wax sénégalais yi. dëgg. mais jeunes yi topp nañ leen macha allah yow déjà yow nga bokk ko gère est-ce que nekkul seen programme jeunes yi gisuñu ci seen bopp parce que Sonko bu riiree rek jeunes yi dañuy daw topp ko est-ce que nekkul programme son la ñu gis seen bopp. mais du loolu seen yow àdduna àdduna euh, siste li ma lay wax mooy àdduna dëkk boo dem jeunes en général dañuy nekk anti pouvoir ndax jeunes yi dañoo bëgg discours guerrier jeune dañoo bëgg discours boo xam ne ku leen di révélo naa leen euh, tey lii bant përëm la mais mën naa ko def or nii laa koy defee nii loolu loolu yëpp mu tegu ci ay wax rek jeune en général dañuy bëgg discours yooyu discours yooyu nag la leen Sonko wan wan moom la leen wax su ma ñëwee damay dindi franc CFA mais naka la naka laay dindee franc CFA su ma ñëwee contrat pétrole yi dama koy négocier waat contrat pétrole yoo xam ne moment bi ba nii ñuy waxee yéen pétrole génnagul Sénégal Sénégal 2021 lañ ko lañ war a commencé exploiter pétrole ba tey fi toll ni exploration lañu nekk mooy seet ñu ngi seet ba tey yu mel noonu nga koy wax ay jeunes yoo xam ne dañoo toog wax dëgg neex yàlla it ñoom it amoon yaakaar ci réew mi ba tey suñu borom dogal ni it liggéeyaguñu amuñu dara dañuy dañuy rêvé loolu ngay wax. mais lu tax guñu yow en tant que jeune nga bokk COJER te ngay jeune te da nga né jeune ni à chaque fois dañuy bëgg di révolté wu di woné sen bop yow en tant que jeune waron nga nekk at à la place des des jeunes fofé nga nga wax ñom ngeen tek sen programme bo xamanteni jeune bu nekk dina ci gis bopam comme que né nga COJER nga bok wa xam nga tay euh, ak ah, te am tamit bëgg na tamit nga wax ma tamit lan moy rôle lu COJER tamit bëgg na ko xam. waaw COJER structure politique la du structure état structure bu politique la lay def. mooy encadrer jeunes yi former leen dajale jeunesse su parti bi fu ñu mën a nekk pour ñuy euh, ñooy fer lance su parti parti bi. kon donc am na ñoo xam ne ñu bokk ci euh, Sonko duñ bokk COJER ñu bokk parti socialiste actuellement suñu mouvement bokkuñu COJER. pourquoi ngeen am idée boobu. COJER pourquoi ngeen di xoolee noonu quoi. non loolu moo am c'est parce que parti socialiste dañu am structure jeunesse. réew dafa am parti bu nekk am structure jeunesse am ñun suñu structure jeunesse mooy cogère mais tey état li nga xam ne moom lay def mooy tey ministère de la jeunesse tey mag état bi gouvernement bi passé am na ministère de l'emploi tey projet bu mel ni PRODAC projet yu mel ni jip euh, projet yu mel ni euh, comment dirais-je financement rapide DER bi nga xam ne président teg na ko loolu yëpp dafa doon soucier wu ci problème mu jeunesse bi président Macky Sall chaque jour chaque jour que fait que jëfee mu ngi soucié wu ci euh jeunesse jeunesse su moy motax moo tax mu leen di chaque jour ay projet yo xamni dañ ci wara a gis seen bopp. mais nañ ku bokul APR do bok ci financement yi. man APR la bok te musuma am financement DER te gis na ño xamni ne it APR am nañ financement d'air man lolou gis nako ko te en général tamit sax ñi bokk APR amut ñu ñoo ëpp ñi bokk APR am. loolu moom am naa ci lu ma ci xam lu ma leer mooy financement yi wax dëgg neex yàlla du ma ne lépp a jaar yoon mais suñ ko doon évaluer mën nañ ne ak quatre-vingt pour cent DER liggéey bi baax na te efficace na beneen bi mooy jeunesse su Sénégal dafa am benn tey maa ngi koy déglu ci rajo bi ci suba ci benn rajo jeunesse su Sénégal dañu am problème mu wutal ma liggéey il faut que ñu dem ci beneen dynamique mooy auto emploi mooy jeune bu nekk war ngaa mën a créer dara. loo xam ne mën nga cee jël sa morom sa morom moomu créer dara loo xam ne ci jël keneen loolu moo tax ñu tekk structure deer mooy financement yi mooy jeunes yi am euh, mën a créer def auto emploi tey aviculture boo demee li mu mën a créer ci emploi kenn xamul nu mu toll agriculture bi waxi nopp mais en général tam beneen bi tamit loolu dama koy faral di wax Sénégal li ñu gën a tardeel mooy suñu ja système bi ñuy jàngee baaxul nasaraan la ñuy jàng tubaab ngay jàng tey da ngay naan da ngay jàng li ngay jàng ak li ngay liggéey bokkul li ngay jàng ak réalité dëkk bi bokkul kon donc boo jàngee ba pare boo ñëwee war a bokkaat ci société bi problème da am problème mu insertion